أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid toll ci buntu ñaar fukkeel ak benn ñu nekk ci buntu ma jaa fi himayati almustafa sallallahu alayhi wa sallam جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك tey nekk ñaareelu dars bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam aar bi nga xam ne aar na ko lu jëm ci kennal yàlla ak tëj gi nga xam ne tëj na ko bépp bunt buy jëme doomu aadama yi ci bokkaale ñaareelu dars bi tey mooy aaya bi borom bi subhanahu wa taala di wax ci njeexitalu suratu tawba aya 128 borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim aya bi boroom xam-xam yi dañuy wax ne al imam muhammad ibnu abdul wahab bi mu ko dugalee ci kitaabu tawxid ibnu kasir nee na borom bi tabaraka wa taala dafa wone xéewal yi mu defal jullit yi xéewal yooyu bokk na ci mu yónni ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bàyyeekoo arsala ilayhim rasulan min anfusihim yàlla tànn ndaw loo xam ne ci nit ñi la ko tànnee yónniwaat ko ci nit ñi ndaw loo xam ne dafa juddoo ni nit ñi juddoo mu màgg ni nit ñi màgge mu dund ni nit ñi dunde metit yi dal nit ñi dal ko mu faatu ni nit ñi faatoo ñu denc ko ni ñuy dence nit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw la loo xam ne yàlla ko tànn waaye ndax daf ko cëppeel rek mu jóge kaw asamaan ñëw pourtant yàlla mënoon na ko ndax wane na ko ci aadama alayhi salaam aadama fu mu jóge aljana la ko yàlla génne indi ko pourtant yàlla wane na ko mënoon na ko def ci isa alayhi salaam da ko génne ci wéy juróom bu jigéen taamul bàyyi waaye yonante alayhi salaatu wassalaam yàlla daf ko waajal mu judd ni nit ñi juddee dañ ko ëmb ni ñuy ëmbee nit ñi mu juddoo ni nit ñi juddoo am ndey am baay mu judd nekk xale daj mettit mettit baa ngi tàmbale sax gisul baayam nàmpul weenu yaayam walla bu ci nàmpee tuuti la ci àll ba lañ ko nàmpale ci baadiya ba loolu yàlla day wane ne ki ma yónni ci yéen du jafe pour bu ngeen ko reyee ngeen mel ni moom su yàlla jële woon gis nga li tax li tax nasaraan yi naan naan Isa kenn mën ra mel ni moom ndax li ci yàlla def la mooy dafa ñëw amul bàyyi moo tax ñoom ñu jël ko rek askane la ko yàlla direct ndax seenug réer loolu nag ñun jullit ñi xéewal bi ñu ci yàlla defal mooy Muhammad loolu nekkul ci moom te moo gën ñépp nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu ndaw loolu yàlla yónneenu ndaw la loo xam ne min anfusihim ci ñoom la bokk min jinsihim ci seen yaram ci seen xeet ala lugatihim ci seen làkk kama qaala ibrahim alayhi salaam xam ngeen yonte baay ibrahim ñaanoon na ca kaaba ga ba mu ko tabaxee ba pare mu ñaan yàlla mu ne rabbana wabaas fihim rasulan minhum yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yónni ci dëkk bi ci nit ñi nga yónni ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk kon ñaanu ibrahima la yàlla nangu yónnee nit ñi nit koo xam ne ci ñoom la bokk loolu moo tax aada yi nit ñi mooy soo bokkul ci xeet bëgg ñëw bëgg leen wax lu baax donte na lu baax li nga yor duñ ko jël gis ngeen tey benn olof bu demoon fuuta di waaraate ñëw naan asalaamu aleykum wa rahmatullah yéen mbokk tukulóor yi yàlla nee na dañuy jël seen dàll won ko ginnaaw su benn olof léegi demoon ci saraxulle yi naan leen yàlla nee na dañuy jël seen dàll su benn tukulóor demoon ba biir bawal naan àlla wi dañuy jël seen dàll won ko ginnaaw parce que nit ñi ñoo yor melokaan boo xam ne ku ñu xamul miinuñu la souvent boo indee dara lu dul xaalis di leen ko jox duñ ko jël waaye bu dee xaalis la nag ñëpp taxaw ndax xaalis moom mooy mbokk ñëpp ku bon bu ko indee ñu jël ku baax bu ko indee ñu jël yéeféer sax bu tubaab yaa ngi ni loolu moo tax fi mu nekk ni mënul nekk ay jullit ndax yéeféer yi ñoo ñuy indil alal ji ñu koy jël da ngeen waa ji li mu wax barki ne mu nee na mbër yi dafa ci am mbër boo xam ne dañ ko tegal fukki million ni ko bëreel mu bañ ñu jox ko ilimaan yi ilimaan yi xeex ñoom taxawal combat bi moom commencé dóorante ay korpay xaalis ndaw loo xam ne ci yéen la bokk dafa judd comme yéen di làkk làkk bi ngeen di làkk nàmp foog yéen sàmm rasulan min anfusikum ndaw loo xam ne ibrahima moo ko ñaanoon rabbana wa baas fihim rasulan minhum ba tey yàlla ne laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim ci saar ala imran aya 164 borom bi subhanahu wa taala mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa defal jullit yi xéewal ban xéewal la daf leen yónnee ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk rasulan min anfusihim ñetti aaya yi yépp laqad jaakum rasulan rasulun min anfusikum rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim ay yëpp yàlla dane ki ma leen yónnee ci yéen la bokk seen mbokk la ci banu aadama benn malaaka bu ñëwoon bu yàlla yónnee woon malaaka yàlla mënoon na yónni malaaka yàlla mënoon na leen jibril yow mi yow laay yónni waaye gis nga bu yàlla yónni woon malaaka malaaka bi ñëw nit ñi duñ ko déglu bu yàlla yónni woon jinne nit ñi duñ déglu jinne bi beneen bi mooy dafa nekkul maandute ay nit nekk ci suuf yàlla di leen yónnee keneen ku dul nit lu tax yàlla dina yónnee nit mooy pour nit kooku def ne ñu def leen ñu def ñu xam ne ñun mën nañu lim def malaaka bu ko yàlla woon yónni woon ba pare mu ñëw wax ba pare daal di naaw ne bisimilah topp leen ma ñun fu ñu jëm gars yi na ko moom fu ñu jëm ñun la yow problème day am waaye yonent la yàlla yónni mu ñëw day def ba pare ne la defal nga def parce que nit la ne yow yenn saay sax nga gis ko mu feebar nga ñëw nuyu si ko yenn saay nga dégg doomam dee yenn saay demal école ba jógal yenn saa yi mu am dëj nga dem jaale ji yenn saa yi nga dégg dafa feebar yenn saa yi nga ñëw nga dégg ñu ne la doon toog weer cin du tàkk këram sallallahu alayhi wa sallam yenn saa yi nga dégg ñu ne dafa xiif bay laxasoo ay xeer mënul taxaw nga xam ne kon kii mën ngaa mel ni moom xam nga tey li yàq àdduna bi mooy diw ñu ne mu kenn mënul mel ni moom loolu du dëgg amul ku kenn mënta mel ne yow nit ñi ñoo jéemul jaar fi ñu baax ñi jaar ku jaar fu gaa yi baax ñi jaar nga mel ni ñoom tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi falahun borom xam-xam yi nee nañ jéem leen mel ni ñi baax ku jéem a mel ni ñi baax baax sikk nekku ci mais diw kenn mënul mel ni moom lu tax dafa doon naaw wala dafa may laaf lan moo tax kenn mënut a mel ni moom xanaa du da doon julli xanaa du da doon woor xanaa dafa téye woon làmmiñam bi xanaa dafa téye woon tubéyam ji xanaa xanaa lu baax loolu waa jooju doon def ku jéem a jaar foofu sax waxuma la dara mais da nga koy raw saxaaba yi bi ñu jéemee mel ne yonent bi est-ce que baaxuñu ah ginnaaw yonent bi kan ngeen gis ku baax ku raw saxaaba yi amul fenn yonent bi moo ko wax maa wata atil ardu baada al anbiya xayrin min abu bakar kaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ne abu bakar doxu fi waaw bi yonent yi passé yonent yàlla muhammad passé koo fi teg abu bakar a ko gën lu tax dafa roy yonent bi kon kay yooyu ay wax la rek kenn mënta mel ni diw ndax diw ndax yooyu ay caaxaan la laa wax na génn sunu bopp yi wallahi ci ñun ku góor góorlu yàlla ma wax ci quran wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulna ku góor góorlu rek yàlla nee na ma teg la ci yoon bi problème bi mooy est-ce que góor góorlu nga lu kese la ku góor góorlu rek baax borom bi subhanahu wa taala mu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum gis ngeen jumla boobu nekk sa téere bi man li ma jaaxal du ma gis ku indi kitaabu tawxid man loolu rek moo ma jaaxal quoi te joxe woon nañu fi ay téere kitaabu tawxid mais kenn du ko indi joxe naa ko fi joxe naa fi fukki téere kitaabu tawxid yu ma benn soxna joxoon pour ma jox leen ko te du ma gis kenn yore ko waaw mais lan mooy njëriñu ñu joxe téere yi mbokk yi lan mooy téer lan mooy njëriñu ñuy liir ay soldat buy dem guerre fàtte arme ndax dina dina rey ah allahu akbar dina indi téere yi nag waaw nee na jumla bi aaya bi laqad jaakum rasulun min anfusikum te yow rek laay waxal yow yaa indi téere yow rek waaw sama jàkkaarloo yow di la xool yaa moom cours bi tey waaw yow kese yaa indi téere nee na al jumla jumla bii mu akkadatun bi salaasa mu akkadaat jumla bi dañ ko feddali dañ ko dëgëral ñetti anam aaya bi yàlla da kaa dëgëralee ñetti mbir bu njëkk bi mooy alxasam giñ ak laam ak xat ñett yi la yàlla def ci aaya bi yàlla dafa giñ ci aaya bi def ci laam def ci xat mu nekk ñetti pied yu yàlla samp pour wone ne muhammad maa ko bind yónni ko ci yéen bi annahu moom yonent bi rasulun yonent la wa annahu min anfusihim ci yéen la bàyyeekoo wa annahu azizun alayhi ma anittum moom day seeni problème sax dafa dafa metti ci moom bëggul ngeen am problème ñett yooyu la yàlla di giñ foofu mu ne yonent boobu minkum ci yéen la bokk kama qaala jaafar jaafar ibnu abi talib xam ngeen jaafar jaafar lu mu bokk ak yonent bi jaafar lu mu bokk ak yonent bi jaafar bismillah mago ali la lu mu bokk ak yonent bi seen ñaari papa yi bokk ali ibnu abi talib jaafar ibnu abi talib jaafar moom moo jiite woon ñi jóge woon màkka dem éthiopie première gàddaay gi ba ñuy dem yonent bi amir jaafar la ne yow yaay amiru gaay yi yow yaa ma fa toogal yaay ànd ak ñoom jaafar bi mu demee ñu dajale jullit yi ci kanamu najaasi yéeféeri màkka ñëw amr lañu yónni ñu ne ko buur bi sa xarit la demal soo demee pour mu delloo ñu leen ñu rey leen bi mu demee buur bi daal di woo jullit yi ñu taxaw ci kanamu najaasi mu ne leen làyyi leen luy seen sabab ngeen ñëw fii yépp yéen yonent bi yàlla yónni ci yéen mooy kan jaafar commencé bokk na ci li mu tontu najaasi loolu wax jooju jaafar tontu najaasi mooy mughira ibnu shuba moom la tontu woon kisra moom tamit kee ci kanamu najaasi buuru égypte moom la tontu buuru éthiopie kii ci kanamu kisra mughira loolu la tontu woon benn tontu mooy lan inna allaha baasa fiina rasulan minna naarifu nasabahu wa sifatahu wa madxalahu wa maxrajahu wa sidqahu wa amaanat yàlla subhaanahu wa taala moo nu yónnee ndaw loo xam ne rasulan minna ci ñun la bokk gis ngeen kon yàlla bi muy tànn Muhammad daf ko tànn mu bokk ci nit ñi ndaw loo xam ne rasulan minna nekk arab ne nun nekk nit ñu xam way juram bu góor xam way juram bu jigéen xam ay maamam xam lépp ci moom ajjuma bi passé dafa am benn boroom xam-xam bu jóge Arabie Saoudite ñëw ci benn gox ci Pikine ajjuma bi passé bi mu ñëwee ñi mu gane si dem ci imaamu jumaa ji jumaa ji dafa am ñeenti imaam mais dafa am ajjuma bu nekk kuy aye léegi ñooñu dem ci imaam bi nga xam ne moo aye vendredi ñu ne ko ñun dañoo am gan gu jóge màkk dañoo bëggoon ñu may ko mu jiite waa dëkk bi barkeelu ci moom mu jàngale tuuti imaam bi ne leen amul benn problème alxaa loolu kay xéewal la ndax ñu ziyaare ko nga imaam bi d'accord ñu bàyyi ba jour vendredi bi léegi ki mu gane si jël micro bi jumaa ji bëgg a leeralal nit ñi lu tax kii di jiite tey gan ki rek am kenn mu ne ci moogu jàkkañ man huwa kii kan la ñu ne ko ah jidee gan gu jógee màkk la mu ne du fi jiite du fi jiite waa ji ne ko lu tax mu ne xamuñu ko mu ne kii gan la ci mazhabu Malik sax gan warul jiite waaye su fekkee am na fi ñeenti fan day matal julli kon léegi mën naa jiite te kii nekk na fi ñeenti fan ci ñun te boroom xam-xam la màkk la jóge mu ne loolu sama yoon nekku ci du ma jiite man bu naree jiite ma jël sama sijaada ah jumaa ñëpp a ngi toog de jumaa ci bu naree jiite ma jël sama sijaada dem nit ñi ne nit ñi ne waa ji bis waa ji bëgg a ba bu mu gisee problème yi mu bëgg a deltu ginnaaw ñi mu ñi mu seet si woon ne ko bismillah demal ci minbar bi nga jiite góor gi jël si yaadaam génn jumaa ji dem yoonam te ci te ci imaamu jàkk ja la bokk gis nga ñàkk dégg diine ak ak mbon fi nit ñi toll ah te tey bu ñu amoon benn géwél bu jógee benn place ñu ne bismillah ñu ne waaw waaw jox leen ko micro bi ñu bànneexu tuuti waaye moom wayal ñu tuuti bu ñu amoon borom xaalis buy joxe est-ce que dañ ne màkk la jóge du joxe xaalis noonu ay enveloppe la yor kenn du ne duma rang de ah ci kanam maa fi jiitu man may mag troisième âge laa bokk waaye ndeysaan loolu sax dafa tuuti bu ne woon ci dëkk yi nu wër kii foofu la jóge damay bañ a tudd dëkk yi yéen a ma ko gën a xam suñ ne woon kii dëkk bii la jóge ñëpp ay skoy ñu ne na jiite ñu ne ku jóge màkk allahu akbar ku jóge màkk kay kooku la gën a jege yonent bi wala moo la gën a jege kaaba gi hmm hmm waaye xam nga lu tax loolu yëpp di am mooy Sénégal dañoo xamul diine wax ji yëpp loolu la wax ji wax ji mooy diine lañ xamul ba pare diine ñorunu lu nekk am na fi bismillah ba mu des diine sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi wax ji mu aaya yi mu wax wax ji moom la jaafar tontu woon najaasi mooy yàlla moo yónni ci ñun yonent bu bàyyi ko ci ñun naarifu nasabahu ñun xam nañu askanam yonent boobu ñun dañoo xam askanam yonent yàlla muhammad rek yonent yëpp muhammad dong lañu xam askanam ma delluwaat ci wax ji ma ne yonent yàlla muhammad dong lañ xam ci yonent yi askanam yeneen yonent yi yëpp seen papa seen yaay wala seen maam ngay xam ñett doy na ñi ci des ñëpp xamutoo ci kenn amma yonent bi dañ lay limal muhammad ibnu abdallah ibnu abdul muttalib ibnu ku ko wax ba mu jeex ñu jox la kado muhammad ibnu abdallah ibnu abdul muttalib ibnu abdul manaf ibnu qusay ibnu ibnu murra ibnu ba ba muy egg adnaan ba ba muy egg ci ismail ba ba muy egg ci ibrahim dañ la koy limal kon kay kii mbiram leer na kii kay kon na askanam dafa sat wecc amul fenn fu mu taqee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne naarifu nasabahu waaye wa sifatahu am nañ xam nañ melokaanam kii xam nañ ko xam nañ duggam xam nañ génnam xam nañ dëggoom xam nañ kóoluteem sufiyaan nee na ibnu uyayna mu jëlee ci jaafar ibnu muhammad mu jëlee ci baayam nee na wax ji yàlla wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum nee na lam yusibhu shay'un min wilaadatil jahiliya nee na yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn musta dégg ci moom mu def jëfu ceddo jëfu ceddo xam nga léeg-léeg sax nit dana judd nekk ndaw jota fo màgg tuub dellu ci yàlla yonent bi nag jaaru musta jaar foofu mus nay sàmm ay xar sax mu dégg céet ñuy tëgg ay sabar ay tabala di filip mu dégg ko mu ne ki mu àndaloon téel ma xar yi ma xool yi lii lan la yeggul yàlla nelawloo ko ci yoon bi ba céet gi paase nit ñi ñibbi mu yeewu dem mu jigi te boobu xale la woon mu jigi ñu tere ko ko moo tax su daan ànd ak Abdullah ibnu Omar ba mu dégg musique wala mu dégg flip day fàtt nopp yi Abdullah ibnu Omar noonu la Naafi gisoon muy def su gi déggee filip rek wala mu dégg musique rek mu fatt ay noppam bu ko naafi xoolee mu ne ko hakaza raaytu abal qasimi muhammad kaana yafal fa faaltu nii laa gis woon muhammad di ko def bu déggee musique fatt noppam yi ñun nag bu mu déggee musique nu nuy def ndeysaan benn waaye nee na paa yi démb bu mu déggee musique dañ naan fayal fayal yow mais léegi dañ naan moo du ñu naan ñu ne wàññil waaye wàññil après yor kurus gi naan nii bopp bi nag wàññil wàññil wàññil après naan nii nu yàlla jubal Sufyaan nee na yonent bi day lam yusibhu shay'un min wilaadatil jaahiliya fi ceddo yi jaar ci seen ndaw ak seen juddu yonent yàlla muhammad mustafa jaar borom bi subhanahu wa taala mu ne azizun alayhi ma anittum sadidun alayhi mashaqatukum lu tar ci moom la seeni jafe-jafe yonent bi mooy koo xam ne ndeysaan ni mu bëgge julli ñi sax seen ndey ak seen baay yi bëggewuñu leen noonu yonent bi ni mu yërëme woon jullit yi ni mu doon yëge seeni metit yàlla loolu la ko tagge azizun alayhi ma anittum dafa tar ci moom seeni jafe-jafe seeni jafe-jafe da koy teree nelaw moo tax bu asamaan si xiinoon yaay Aysa di nettali nee na bu asamaan xiinee yonent bi day mel ni jigéen juy matu day onk di jóg def va et vient comme jigéen buy onk jigéen buy matu xam ngeen jigéen buy matu du toog day jaabanti su toogee ñaari minute jóg ñu ne yaay Aysa lu tax yonent bi doon mel noonu bu asamaan si xiinee su ko Aysa ne toogal mu ne ko niti aada yi nii la woon asamaan bi xiin ñu yaakaar day taw ndekki mbugal mooy ñëw xawmu Huud nii la woon góor jigéen ñi nii la woon asamaan si lëndëm ñu yaakaar ne day taw ndekki mbugal mooy ñëw xam ngeen yonent bi kañ lay toog asamaan si commencé car car ndox mu ne allahumma sayyiban nafian yàlla taw bu am barke mu doog a taw lu tax yàlla moo ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla nee na ko dama laa yónni pour nga nekk yërmande kon kooku mënul toog moo tax mu ne xeet bi yëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ku bañ saaba yi ne ko ndax nit dina bañ a dugg àjjana mu ne waaw man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg àjjana ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg àjjana kon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na azizun alayhi ma anittum yaizu alayhi cheyu alladi yaanat ummatuhu dafa metti ci moom coono yi nga xam ne xeetam bi am na ko wa yasuqu alayha dafa jafe ci moom problème mu xeet wi ndeysaan moo tax loo dégg yowmal xiyaam bu ñëpp bu ñëpp gàntalee ñu dem ci muus nuux mu ne man damaa ñaanoon ñëpp dee dama am problème nit ñi def mu ne dem leen ci Ibrahima ñëw Ibrahima ne man mosoon naa fen loolu laay lijjanti ñu ne nu ñuy def mu ne dem leen ci Moussa ñëw ci Moussa mu ne mosoon naa rey nit nu ñuy def mu ne dem leen ci Isa ñëw ci Isa mu ne man dañ ne woon yàlla laa man loolu laay lijjanti nu ñuy def mu ne dem leen ci Muhammad mu ne ana laha maa ko moom man maa moom loolu bu mu ñëwee ci sujjóot ci kanamu yàlla xam nga lu ko yàlla wax irfa raasaka yëkkatil sa bopp was al tuta laajal ñu jox la was fa tu safa waxul ali anamu ana ali waxul lool ana fatima ana aïcha ana xadija waxul waa këram de lan la wax dane ummati yàlla sama xeet ummati ndeysaan xoolal ñun ñoo ngi fii Sénégal yonent bi di ñu ñaanal yàlla pour ñu dugg àjjana mais ummati xeetam la wax de waxul waxul ana ali waroon naa wax kon ana ali mu ne maa ngi ni mu ne ana ibrahima ana ana mbokkam yi di nit yàlla yónni ko pour mbokk moo tax sénégalais yi dañu feebar da ngay dégg ñu am ku ne ñun ñun ñooy dem àjjana caabi ji sunu diw moo ko yore ku àndul ak moom doo dugg te ñu ko ubbi mu yaatu ñëpp dugg pourtant yonent bi waxul sama saxaaba rek ñooy dugg àjjana yonent bi waxul araab yi ñooy dugg àjjana waxul sama waa kër ñooy dugg àjjana yoon dane ummati lu tax ñoom mënuñu wax ummati waaye ñun ñun da ngay gis fi koo xam danaan ñun ñun ñooy dugg ñun bo boo ñëwul doo dugg de tey nga waaw tey nga ne yaatal mbir mi ndeysaan arab bi bi mu ñëwee ci jàkka ji saw ñu bëgg ko dóor mu ne mu ñaanal yonent bi ndeysaan mu ne yàlla yàlla nag ma yërëm man ak yonent bi yonent bi ne ko bul xatal lu yaatu mu ne lan moo yaatu mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu ñun tamit nan yaatal àjjana pour ñëpp la lu tax ñu bëgg ko xatal ne ñi ñi duñ dugg danu leeral na nit ñi diine ji leeralal leen yoonu aljanna nit ñi daal di ciy jaar duggi aljanna loolu mooy loolu moo jaadu waaw mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam seeni jafe-jafe dafa dafa métti ci moom ndax bëggul lenn lu metti nit ñi moom sax moom moo wax ci xadis bu wér bu istu bil xanifati samha bil xanafiyati samha yàlla yónni na ma ci diina ju yomb ju set wicc ñëw na ci xadisu beneen mu ne inna haza diinu yusrun diina ji dafa yomb wa shariatuhu kulluha samhatun sahlatun kamilatun yasiratun ala man yassaraha allahu alayhi mu ne diine yonent yàlla muhammad sharia mi da ngay dégg tey ji sénégalais yi bala ngeen doon xam ne sénégalais yi ci ëpp duñu ay jullit bala ngeen ko doon xam ñu xëy suba 8 heures ñu ne dañuy woote pour ñu àtte sharia ñëw leen ngeen génn ngeen woote ndax ñu àtte sharia nga dégg ñu ne yii dañuy dagg suñu loxo yi yii kii dagg ko fu fi rey dan lay rey de dégg nga loolu la ñuy wax non loolu loolu ñun mënuñu ko loolu mënuñu ko commencé di laay pourtant ñun li ñu lekkee léegi charia moo ko gën xoolal démb barki démb ñetti xale yi ñu rey ni ñu lay agressé la doon leen rey wala kenn gi dañ koo dóor ay birig ba bëñ yi dañ gémmiñ gi moom màbb amatul bëñ lan moo gën a ñaaw loolu ci àdduna est-ce que yàlla loolu la wax bu ngeen jàppee agresseur ngeen rey ko bu ngeen jàppee sàcc ngeen rey ko voilà kon kay lislaam li mu wax mooy dëgg nit ñi dañ naan lislaam day reye wala lislaam day def nangam nangam caaxaan yi am ci réew mi bu bu fi lislaam amoon du am am na benn dëkk ci dëkku Afrique yi la dama fàtte tey nu ma déglu journal ñu ne dañuy tere ku fa sol mini robe est-ce que du Burundi bu ngeen demee ngeen dégluwaat ko maa ko déglu tey ñu ne dañuy tere jigéen bu fa sol mini robe dañu duñu ay jullit ñu ne ku ko sol dinañ la alam dinañ la tëj fukki atti kaso jupe ku sol jupe fukki atti kaso dinañ la alamaan xaw ma ñaata dollar xam ngeen lu tax agression bi vi viol bi moo bëri jigéen ju fa génn ñu violé la loolu moo tax parce que l'islam moo wax dëgg jigéen ñi ñoo war a sàng seen awra yi lan moo tax fi mu nekk nii ngeen dégg ci école yi ci dëkk bi ay problème mais awra yi nga xam ne mu ngi génn ci biti bët yi di ko gis xale bu jigéen boo xam ne chaque jour 24 heures yaa ngi gis ji awraam mais sa xel day nekk ci moom. bu la seytaane roofoo boo ko munee mandiloo mandiloo ko boo ko munee loo mun a def def ko ko sëñ bi kenn du sangu lem ne weñ du ma topp wala xam ngeen lem sotti ko ba pare nga ne benn weñ du la laal yoral sax yoo tox nag nga taxaw nga sotteeku lem ba pare nga taxaw yor yoo tox da ngay sonal sa bopp rek yoo tox bi dafa nar a jeex mais weñ yi dina tag sa kaw parce que yow yaa sangoo lem loolu mooy sunu problème. dañu nekk ci lu bon ba pare ne lu baax la ñuy am du dem ñu sonn rek da ngeen Macky Sall nee na dund gi mënu ci dara du loolu ngeen dégg tey wala du loolu la wax nee nañ daara de première nécessité yi xaw ma mënuñ ci tus du lool du ci Macky Sall la nekk loolu moo lay wane dafa nekkul ci loxo ma xam ngeen ci loxo kan la nekk loxo yàlla walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxnaa barakaati min bu ñu gëmoon yàlla rek yàlla nee na man maa yombal dund gi man maay indi ndox mi léegi mu tuuru asamaan si su ko defee bu ñu bayee kilo ceeb cent franc lay jar waaw kilo ceeb bu ñu gëmee yàlla kilo ceeb kilo dugub kenn dootu fi jënd sax dugub dan la koy may amoon na fi ñi may dugub kenn du ko lekk amoon na fi ñi may nii ay saaku dugub ay saaku mboq kenn du ko lekk kuñ nga may kaay jël nga ne noonu baax na baax na ñun bi ñuy yalwaan nekk ay taalibe bu ñu saraxee dugub duñ ko jël billaahi wallahi taala man bi ma nekkee taalibe di yalwaan ku ma sarax dugub duma ko jël wala ma këpp ko sa buntu kër ah gis ngeen foofu lan tolloon mi ngi nii tey mënuñu koo gis ba koy këpp dañ koo mënta gis loolu mooy wax ci parce que démb dañoo gëmoon yàlla di góorgóorlu tey ay caaxaankat lan mbokk yi diina ji dafa yomb sharia bi dafa yomb kulluha samha yépp a yomb islaam yàlla santuñ ci lu jafe waaw yenn saa yi nga dégg ku ne yéen seen diine bi dafa jafe dafa tàng dafa métti kenn mënu ko déedéet diine bi amul lu jafe diine bi lépp a yomb yomb moo tax jaamu yàlla yépp yàlla séddale ko ay waxtu ay waxtu la suba tisbaar takusaan timis ge ay waxtu la weeru koor gi aj bi lépp ay waxtu la maa ngi jégul mu ne sahlatun kaamila lu yomb la ba pare dafa mat nee na lu yomb la ci koo xam ne yàlla subhanahu wa taala yombal na ko ci moom dina ji dafa yomb ci ku ko yàlla yombal waaye ki nga xam ne yàlla yombalu ko ci moom day gis ne diina ji ak a métti waaye yii yow da nga yeewu fajar di dem jàkk la ilaha illallah o man de mënuma yeewu fajar parce que yàlla yombalu ko ci yow yàlla yombalu ko ci yow da ngay woor weeru koor ba mu jeex yow yow weeru koor gi passé woor nga ko nga ne ñu ni man de benn fan sax problème la parce que yàlla yombalu ko ci yow yenn saa nga gis ko dajeeg benn jigéen waaye yow da ngay muuru nii tàngaay bi nii da ngay muuru doo yëg dara benn tàngaay déedéet parce que yàlla daf koo yombal ci moom du ko yëg du ko yëg yàlla daf koo yombal yow xamul tax mënoo ko parce que yàlla yombalu ko ci yow jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne julli wa innaha la kabiratun illa alal yàlla nee na julli dafa diis lu dul ci kaw ñi ragal yàlla rek ñoo ko mën ku ragal yàlla mënul julli ci takbiratu ihram rek nga koy xamee mu nit ñi naan allah moom ni la parce que dafa diis ci ma xol loxo yi sax yàlla du ko yëkkati xam nga dañu ne booy tàgg kabar armal da nga yëkkati sa loxo ba ci xas man ki bay ya fii ba gis mu waa ji moom comme yàlla yombalu ko ci moom loxo yi du jóg nii lay def yéen mi ngi du wax nii du wax parce que yàlla da yombalu ko ci moom ruko bi sax du dem ruko bi parce que ndigg li la yàlla di kale loolu moo tax yowmal xiyaam bu yàlla di segg jullikat yi yàlla danaan julli leen rek ñi doon julli daal di sujjóot mu ne yawma yuksafu an saaqin yawma yuksafu an saaqin wa yud'awna ila sujud fala yastati'un bu ñu ne sujjóot rek ñi doon julli ñëpp daal di dem teer teg seen jë ñi daawul julli bëgg a dem yàlla kale seen articulation yi ñu ne këj mu mel ne ay porte lampe yu taxaw xam ngeen ku bëgg a sujjóotloo porte lampe ndaw baqata yu bari man yàlla jubal man ñu dëgg nee na yonent bi xarisun aleykum ku xër la ci yéen ala hidayatikum yonent bi dafa xër ndax jullit yi jub nit ñi jub ndax jullit yi njëriñu àdduna yegsi ci ñoom ak njëriñu àllaaxira jëlee nañ ci Abu Zar nee na tarakana rasulullah salaa sallam ay bi de bëgguma ko profité xaar leen ma yem fii insha allah ci xarisun aleykum ba dars bi di ñëwaat ndax heure bi dafa jeex te li ci tegu ci ginnaaw dars bi dafa am importance bëgguma ko përëx përëxee assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh